ayca mi ngoogu eh, eh, ayta yaa ngi ko gis eh, ngénteel tubaarkàlla mi ngi mi ngi mi ngi rampe nànk nànk ngéntee ngi war la comme ni ko Ismaël ak Mourou Mbaye waxee ñu ñëw nag ci euh, Hadija la mu nekk doomu ay Patara mu teewe ci gis bi ànd ak nag Bijou Jagana borom tur bi nuyu naa la. maa ngi lay fay Seydou. maa ngi am jàmm. ah dégg nga Bijou Bijou ngi tabax ci suuf nee na sa yaay moo la ko may. waaw loolu dëgg la. kon actuellement yaay doomu Bijou. waaw loolu am loolu dëgg la moo tax tey nga accompagner ko ci turbi bi. waaw nga yëg tey. waaw kontaan rek kontaan rek parce que boo gisee ay nit ñuy ànd. Euh, depuis fort longtemps ku ne gis na Bijou nu mu sonnee vraiment si ñoom Paulish la liste elle est longue mm-hmm. euh, euh, je pense que lii rek fii aboutissement yi rek la mën a am ñëpp kontaan si vraiment Paulish tamit nekk ni ku baax mm-hmm. euh, reconnaître peut-être fi ko Bijou taxawee ak relation yu baax yi ñu sekk vis-à-vis de vie professionnelle am ba ci vie privée parce que ku gis lii xam ne ça c'est en de de la vie professionnelle ñu rafetlu ko daal am si mbégte ak kontaan kontaan lan mën a xaar waaw Khadija bari nga ambiance ambiance <laughs> mënuma ambiance damaa ruwee mbaa damaa doon waaw moom moom la man man la <laughs> ay ca mi ngi tubaar kàlla mënul ñaaku daal koy rubé tudd merci beaucoup Khadija merci wax Leral TV waaw Leral TV ci kaw ci kanam rek ah, ci lu baax waaw su kontaan na ay ca mi ngi ay ca ay ca ñu daal demaat xool leneen tubaar kàlla